كما قال من كما خاطبه من قال إن الله معنا عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره الأمين لكلكلي وجسدي عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره الأمين بكلكلي وجسدي ناجيت سلعة العظيم بالحب معذر النسيم ولي كان بعظيم وسانني عنه السديم نهى بتوحيد الأحد قلبي يا رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وعيبي بالشفار مستغنيا عن النفار بجنده في خلدي لم ينهني مبارز وفيت ربي بارس إبليس لا يبارز جند العزيز الأحد لم ينهني من اعترار أو من لقلبه مراد ولي يقود في القرار ربي ما لم يجهدي الله كان لي بما يبقي ثلالا سبما خطا ولي خوتا بما قاد وخير رقدي حدية الله المعين ساقت لخير اللعين walyawma billaahu yuhin man shaahu wa fi xati mataliya laahu lbusaar bi jaahi sayyidi lbasaar waliya yamnahu nasar lam anhuma lam yufidi allamani laahu lalim mima yasaau min xulub wa sabba xilli bilkulub مترفا بشفتي ناديت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها ولي يروم أحمد خير صفدي الله رب العالمين صلى على الله وطوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربه ولا

كثيرة وطول باب لمن عرف ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام وللذين وجهه ترتقي إلى الخير لا إلى الثمن والخير وويل لمن لم يقل ما أتى به المتقى عليه بآله وصحبه سلام

وأقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قالت إليهم لما كان يرتقي إليه من الجنة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله بالذل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من كان في أمته قبل موته فإنه يشفع فيه وإن من لم يتب منهم توبة نصها فقد أمره من وعظه نصحا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد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 والجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان إلى الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه للمشاركة فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به المنتقى عليه السلام بالجميل التي فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفضل ربك فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يضمن بكل ما من خير يستفيد فاطلبوا فيه تبارك وتعالى يصرف إلى غيره خيرا وجودوا فيه إليه تبارك وتعالى عند الإحسان فإنه يحكم بكم إلى غير الأولياء وتوجهوا

nga xam ne li xam ne Sëriñ Tuuba wax na ko ba fii ci jàng mais lépp lu leen wax na ngeen ko def ndax li leen wax ak nañ leen seen àdduna ak seen àlla nee na mooy gën yéen loola sëñ wax ko mu ne na ngeen ànd ak kuy rafet di ànd ak wax ko ànd ak pas-pas bu rafet te lépp lu ngeen def ngeen teg ko ci muy ko yàlla digal di jaarale ko ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ku dëgg rek bala may jox kilifa bi teew sant kat maa ngi gis Sëriñ Abdul Ahad monsieur Moutara ñii Sëriñ Tako ci Cheikh Moustapha moom ñu sëñ Mame Balla Fadi moom yegg si na ak sëñ Ahmadou Khady Fall nga xam ne teew nañ ñoom yëpp ñu ngi ziar bu baax a baax wax ne lii la Cheikh Mouhamadou defandoo ko fii ngir yëkkat ci diine lislaam ngir àndandoo ngir bokk lépp lu ñu xam ngir liggéeyal xam ne mooy Xaadimu Rasuul te mooy liggéeyal suñu borom te loolu rek moo jaar budul mu jaar kon nag sax moom ñu ko daal ñaan yàlla yàlla dolli ko ay leer di ñaan yàlla suñu xarit bi ku nekk ñu seet si li mu baax yàlla ko yàlla dolli wér ak kattan ak gudd fan ba man ñoo gisee ñu yàgg yàgg di ñaan sëñ Maamoor bi nga xam ne moo fi yor liggéey sax pour mu yàlla dimbale ko kattanam mooy jot kàddu nag mboolem kuy jëf ci seen fànn bii yëpp dañuy ñaanal bu baax a baax mboolem kilifa yi ndax yàlla suñu wa taala kat moo wax ci alquran ne atiiwu llaaha wa atiiwu rasuula wa ulil amri minkum mais dina topp yàlla day topp yonent bi waaye dina topp kilifa yi nga xam ne moo leen digal li leen yàlla digal te mooy tax nit tey ëllëg moo tax moom ñaar boole ko fi ji ñaar boole tay bi yàlla may kattan ak wér dañ mën a jëfe jiw yi nga xam moo tax yàlla bi kon naa ngi nuyu bopp yëpp yëpp yëpp di baal wax yëpp sant yëpp di baal wax ñaan yàlla yàlla may kattan ak bind ak wér dañ ko ak lu bare bare bare ci barke fan yii kon naa di bàyyi seen Abdou Ahad soxna Ba moom it mu joxe déggaane ñu door jox la digal sëñ Tàkko rakam ji mu jot li kàddu te kàddu mbooloo mi yëpp di leen ñaan di leen sant di leen gërëm sëriñ bi ne asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbooloo bi teew yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ak waay ma di jóge ñu ngi tàmbalee nag ci sëñ Bousso mi ko yàlla sëriñ bi nga xam ne moom la gën muy weeru yërmande di weeru jéggal di eh, weeru boole ci safara yal na ko yàlla defal ñun ñëpp di jaay xaadimu rasulullaay weer boo ne ñu xam ne war nañoo sant yàlla ba ñu duggee ak jàmm ba génn ak jàmm mu mel ni kon dañoo def ndigalal sunu borom yàlla na ko yàlla nangul nee sallallahu taala wa sallam nee na nee képp koo xam ne woor nga ak sellal nee doonte say bàkkaar dafa toll ak guusi sunu borom dañ na ko jënd yàlla ci yàlla boole ñu kon yàlla na ko yàlla defal nu farlu bu baax nag di topp ndigalal sunu borom bi ni nu farla woon ci weer génn ci jaamu yàlla yi nu fay koy wéer la ndax ne jàmm yàlla am moom wéeru mu génne am na wéeru mu gëne waaye nag ci weer yëpp lañ ko tàmm kon ne nag du leen soxla lu baax a baax ne ñu ngi sant si ilimaan Buso mii ak mbooloo mi fi teew ñëpp ak ci taxawaayu bi nga xam ne mat na sëkk mu di ko taxawaayu fii di ko def nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mourtala ci di ko taxawal taxawaay bu ma sëkk boo xam ne nag defal ko kenn lu njabootu lislaam lépp la ko defal ne rawatal nag ñun ñii njabootu Serigne Touba ne loolu nag ak sag bu rëy la ci dëkk bi ndax lii mu taxawee bu ko taxawul woon kon nag ñun ñëpp dañ ci am le responsabilité bu mag ne waaye nag mu di ko taxawaay bu ne loolu nag yal na ko yàlla yàggal du ñu fekk ñun ne kàddu yooyu nag la ci sëñ bi doon barkeelu surtout magam jii di Cheikh Abdoulaye Mbacké ak suñu maam Balla ak njaboot si Tuubaa bi fi rek ak maam Cheikh Fall bi ne asalaamaaleykum ah lu xaat liñ ko dee nag kenn ku ne ba nga fii ñëw xam nga dàll wa nga soloon ndax jóomee dañu di indi ay caraf ñu dee sol daal di jàppal ko du ko laaj kenn ku ne nga xam dàll wa nga soloon nga sol ko koy ndax jóomee dañu jàpp sa daal yi rek sol daal di jàpp bisimilah ne kon sëñ Abdoulaat nga joxe ñaan tàllal leen seen loxo waaye doon amin amin amin amin amin amiin addiya sëñ Tuubaa yi di ko wax jox ko njaboot sëñ Tuubaa yi lu waaye am na ko indi fii mën leen noo jóg bisimilaay amiin amiin lamb leen seen poos de amiin amiin naa di ji ñëw amiin amiin amiin ba amiin bu ma tee si nga jot de tifli leen te naa yoo amiin الأمين في الملأ المكمل عن روحنا والجسد فتى فتى لم يرى خطوات لن يرى لمن ياتي سيرا ردا مديم بسري قد قاد خير المرسلين ليت خير المرسلين وبالذاب الأكمل خدمة خير البشر ديني حب الأهما حب الذي العدا قما لي وللمناجما بلا أشن أو كدري نفع لخير الضلال وما يودي لاعتلال من للجنان بالحلال قد قادني بالخضر